mënul soxna ñaan ak Abdoulaye soxna ñaan ak Matar Ndumbe soxna ñaan barget saaxeer Fatma yi seen baay barget saaxeer Fatma nag ku li ko dugoy ndaw wéget la mëngoonam xol somboñ mbañ gànna leel fay gànna leel fay moomee moo jur wax sàpp ak saamaan gànna ak jaat gànna ak kunu gànna gànna moomee na kunu jàll gar njaajaan njaajaan njaay mu del suwaat nag ci njaay gi kon ba tey nga xam ni xam naa jóobee nag njaayeen yi bu nu déggee loolu daal ni kat nun daal jóob lan sun waaye sun woon njaay waaye nag jóob goo gis njaay la woon loolu moo waral waxtaan wi ndax boo demee fii ci Kajoor sorewul da nga fekk ñu sant baan baan déformation la waaye baal la ñu sant ay xaal pulaar la ñu ñu ngi soog ko Cerno Suleymaan Baal loolu aussi dafa mat a xam. boo duggee ci biir Kajoor it da fa fekk faal faal googee santu woon faal faam la nu santoon faam kundaa la nu jóge ay soose la nu te faam kundaa mi ngi soq ko ci l'empire de Ghana maanaam l'empire Mandeng l'empire Mandeng ku ne xam le plus ancien des empires noirs connus ah c'est l'empire de Ghana il était situé entre le Sénégal, le Niger et le Sahara. La capitale Ghana, donc il ne reste que des ruines, est une immensité, les empires étaient très riches et vivaient du commerce de l'or. kon faal joo ci Kajoor faam la ci la kër Ceyaasin génn ci la Maajoojo génn ci la kër Jajare Jaseer ci la kër Thiendella it génn kon daal nga xam ni li may wax ni senegal benn bopp lanu Sénégal benn bopp rek lanu noo bokk ndey noo bokk baay ndax dégg li ma wax léegi ci njaay boo demee giri maxa dañuy wax njaay giraanu giran la dañu wax giraanu mais giran la c'est parce que Guirène moo génn gàddaay la mu génne gàddaay nag mooy jolof la xëyee ndax Guirène buri jëleen la ak tasi buri jëleen ak lat sàmb buri jëleen ñoo bokk ndey ak baay bi mu génnee gàddaay nag la dem ci dëkk yooyu fu ci nekk nag ñu may ko soxna mu am fa doom looloo wax naan moo génn gàddaay bàyyi fa njaay tàmbaaga jara njaay dépp mag gaani ga njaay jili max ga noonu daal looloo tax xam sa cosaan jóg wane ni génération montante bii di ñëw nanu yeewu bu baax a baax a baax ci xam nag li nu bokk ak nit ñi xam ni koo ci dajal rek booy ba def ko na sa bopp ndax yéen a bokk ndey yéen a bokk baay ndax wax naa ni njaay ga ca Casamance mooy njaay gi ci Jolof Jóob ga ca Saalum mooy jóob gi ci Cap ñoom ñëpp ñoo bokk menn maam ndax sap gan ak saamaan gan la ñu wax ak njaan gan moo jur débéytu jóob mu jur maa demba ndumbe njaay mu jur jël jóob garal jël jóob loolu dafa jar kon daal am naa yaakaar ni xam sa cosaan di moo ko tax a jóg ñu bëgg nag ñëpp di ko déglu rawatina génération actuelle ndax tubaab bu lay jàngal daf lay jàngal ni mu mel waaye du lay jàngal na war a mel ndax na war a mel nag yaa koy xam yaay xam ni kii sant Diop sama mbokk ki sant Ndiaye sama mbokk ki sant Fall sama mbokk ki sant Seck sama mbokk ndax dañuy dem ba duggante ndax. ma Fatma Thioub moom li ngeen yaane jaayu ko jur moom li kor faal moom li ko du biige allo na ku ne ci ligne bi asalaamaaleykum mbokk bi foo nuy woowee. maa ngi lay woowee Géejawaay. ak na nga tudd. Aïda Fall. Aïda Fall. waaw. ah jërëjëf Aïda Fall. noo gis rafetlu bu baax émission bi. waaw waaw. ndax dina tax euh, xale yu bari xam lu bari. dëgg la. waaw ñii tamit dama bëggoon laaj parce que dañuy wax euh, Ndiaye. Mm-hmm. dafa dugg ba biir Fouta. Fouta waaw. oh sunu mbokk moom waaye dafa àll day ngi woon bu waaye dana dellusi waaye xam nga lii rek moo tax émission bi jóg ngir bëgg nit ñi kenn ku nekk nag xam ni diw mii sama mbokk. dama doon wax léegi ci biir ma faat ma cubbu moom liggéey Yande Njaay jé nga Njaay dugg na moom liggéey Kor Faal moom liggéey koddu biige biige sukkanat adam faxa kumba sobel takorendo kewe jëleen menge jaata ndumbe nduur bër mbegaan nga xam ne senegal ñooy benn bopp ndax boo demee tey kawoon ña sant nduur a nga fa nga ñëw fii ci siin boo duggee Fatick Buxaama Njëm Mbaamaan Jaraaf Loga Njaay Njaay ñëpp da dégg nduur boo ñëwee fii ci jaayaan ci kër ale Baba Joor Nduur da dégg nduur ci jaayaan yooyu yëpp kon senegal daal allo am na ku ne ci liñ bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga tudd ak maa ngi tudd Khadim Diop. Khadim waaw di la wooyee fii ci mbuur Somone. jërëjëf Khadim. waaw dama rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diop. fu ma leen gisee ci télé bi mm-hmm. sama xol bi day sedd. dëgg la Diop. damay gën a xam sama bopp. dëgg la Diop. parce que ñooñu ngay tudd. Mm-hmm. man ci famille boobu laa bokk parce que sëtu maam Matar wax nga dëgg Diop. parce que fi mu toll nii sama papa moom mag ci sëti maam ma Ndoumbe. dëgg la muy Cheikh Makhtar Diop. dëgg la Diop. parce que moom. Mhm. sëriñ Mourou Diop moo ko jur. Mhm. sëriñ Diop ndàkk. dëgg la. kon bu ma toogee rek di déglu sànq ba léegi nii ngeen wax ci mbiru ñi sant Ndiaye ak ñi si dëgg la dëgg la Diop. sama xol bi day set. dëgg la Xaadim. mais kontaan naa trop. jërëjëf Diop. sa xale lañ waaye xam nañ suñ bopp bu baax a baax. wallaay wallaay Diop wax nga dëgg. tey ku bokk ak ku mel ni Serigne Baara. waaw waaw. bokk ak Serigne Cheikh Gaynde Fatma. wax nga dëgg de. bokk ak Serigne Mbacke Soxna Lo. wax dëgg. bokk ak sëriñ Basiiru Faadu Maam Diop. dëgg la. bokk ak sëriñ Masamba. dëgg la. bokk ak sëriñ Mourtala. dëgg la Diop. parce que maam Cheikh Fatakou Diop moo ma tuddee sëriñ Touba. ak sa. moo ma tuddee sëriñ Touba sama papa waajuram la ma bëggoon a tuddee. moom mu ñëw ne ko sëriñ Touba nee na ma nga jox ma tur wi ma tuddee ko ko. ak sa. sa ngeen wax li ngeen bëgg ci jëmm ji bu ëllëgatee mu defal leen ko. waay waay xaadim yaa baax waay Diop. waay waay Diop yaa baax waay xaadim. xaadim dem na jërëjëf Xaadim Diop ca Somone waaw loolu rek a tax émission bi jóg na xam nga nit ñi il faut ñuy xam seen bopp ndax dama wax ni Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay da ngay seet li nga xam ne xale bi loolu la wax ni baayam defoon nañ ko tuddee Xaadim Rasul sëriñ mag ca Touba nga xam ni loolu moo am solo lool. xaadim Diop bi ñu ko tuddee sax ndeysaan sama xel dafa dem ci Baye Cheikh Takko mi nga xam ni mooy mbokk ne Amadou Yàlla Takko ak Aminata Takko ak Fatou Bintou Takko Khurija Takko Takko Diop burgeel jël leen nag yoro jëw jur ko loolu dafa am solo lool xaadim Diop jëf dama doon wax léegi ci Linguère Yande Ndiaye moom Linguère Kor Fall moom Linguère Kor du Bigé Bigé ko nag Adam Faxa allo am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. sag bi na nga tudd ak foo nuy woowee. Pikine laa lay woowee. Pikine tudd. Mamadou Fall Mamadou Yacine Fall. Mamadou Yacine Fall waaw waaw waaw wax nga dëgg. bon comme ñun dañuy dégg ñuy wax ak Dee Yoro Fall ak Madi Fall ma daroon ak gaynde ga ca Waalo. waaw ma jox ma dégg naa la Fall. voilà. jërëjëf Fall. waaw kan. ana Bira baa ñu leen ko dégg. ma nga Gabon. jërëjëf Fall. waaw kon mën naa coupé. jërëjëf Fall jërëjëf